jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñu def ak taxaw seetlu ci transport bu Touba Touba la deuxième ville du Sénégal wala Touba boog dëkku Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mbokk yi ndax jàpp ngeen ne jekk na jaadu na wala yellu na xeetu oto yi nga xam ne nii moo yor sunu dem ak sunu dig moo xam ñu leen di wooyee Mbàkke Touba mbokk yi ñu nekkat kat juróom-benn ci ndeyjoor lay yëpp juróom-benn ci càmm ak ñaar wala kenn ci kanam ak chauffeur bi li ci gën a yéeme nag nangu nañ ñun dugal ñu ci oto boobu mel na pañe salaat rokkos ñu marchepied bi ñu yeb ko ba mu fees dell ñu teg ca porto bagage ba di daw nag jinaani mbokk yi ak wax joo xam ne weñ wu ci dal faatu mbokk yi lu xew ndax kat ñiy dem nañu dem rek ñi rawate yi ñoom nañu yàpp rek seen yoon newul ci li ci des mbokk yi li ci gën a yéeme nag mooy oto boobu mbokk yi ñaari nit képp wala ñetti nit képp nag lañ ci garanti yéen ñi ci des yëpp kenn assuré loo leen maari day taali bu dara xewee suñ yoon newul ci yéen mbokk yi ñun ñëpp ñu ànd maasa nangu ko jàpp ngeen ne oto bu nuy wooyee muus doomu aadama war na cee dugg yenn saa yi sax ñu roofalante suñuy tànk moo xam góor ak jigéen suñu yoon newu ci mbokk yi nañu yàpp rek na ay ca benn këyit duñu ko yor amul sécurité amul assurance ak lu tax duñu ko sopparñi nañ ñëw ci taxi yi ana ko xàmmee taxi ak ku dul taxi ab làmp kepp saa la neexee doon taximaan amul mandarga waxoon nañ fi ne dañuy peinture oto yi ñu lànk fexe nañ ba kenn peinture ko ku xam ndax taxi lañ yor wala kalandoo lañ yor wax ma war na noo am ay oto yoo xam ne nii ñoo gën a feex gën a yaatu te it ñuy yàpp loo xam ne nii mooy lim bañ war a yàpp te ñi ci nekk ñëpp nag ñu garanti leen mbokk yi dañu waxoon indi indee bus yu mu tane bus yi nag li ci gën a yéeme nag ñu indi ay bis waaye bus ba kat chauffeur bi day taxaw di wuti client receveur bay taxaw di uti client yenn saa yi ñuy waxaale yenn saa yi ñuy xuloo foofu yi dañuy nokkos ba mu fees rek heure bu la neexee dem heure bu la neexee taxaw ndax dëkk bi yeyoo na lii li ci gën a yéeme nag mooy sareet yi dañu waxoon ne amul fukki at ak juróom-ñett doo dawul saret xool leen xale yi nga xam ne ñoo nekk ci saret yi mbokk yi sa yaram day daw mbokk yi ay gone yoo xam ne nii dañoo war a jàngi ñu jox leen ay saret ne leen dem leen ngeen uti koppar mbokk yi lu leen neex wax lu leen neex def mbokk yi amul sens interdit amul priorité mbokk yi ñaata nit a damm ci saret yi ñaata nit ci làggi mbokk yi ñun ñëpp ñu taxaw di seetaan te buñ la kat baal ma rek a ciy topp mbokk yi ndax Touba yooyowul transport bu gën bi mbokk yi bu Ila Touba ñëwee looy def ci cette place mbokk yi coow li na kur dëgg la du transport waaye nag yaa fi ses mooy taxafalu mbokk yi lu xew lu tax duñu taxaw ngir soppar ñi oto yoo xam ne ñoo gën a méngoo ak dëkk bi ñoo gën a méngoo ak waa dëkk bi ñoo gën a méngoo ak borom dëkk bi Touba la deuxième ville du Sénégal wala Touba boog dëkku Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mbokk yi ndax jàpp ngeen ne jekk na jaadu na lu xew ku xam wax ma mbokk yi war nañ cee jóg de jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM.